kii ndeyjoor kii càmmooy kii suma kanam kii suma ginnaaw di ma laaj may tontu fi ma sëgee kenn dóor ma mooy dóor ma ma daanu biñ ma dóoree ma daanu ñu di ma weex ba nekkatuma xamatuma fu ma nekk ñu watat ma diri dugal ci oto yóbbuwaat seen kër baay dóor ba seen xol sedd ñu ne ma simil sa yére ma bañ ñu xotti ko suma kaw seen baay toog yéen a ngi koy gis si vidéo bi naan defal la mu naan ma defal li xale yi wax mooy ma jéggalu ma ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ne tooñu ma la ñu toroxal ma ginnaaw buñ ma agressé kidnappé ma yóbbu ma vidéo ma te amuñ ci droit waaye partagé ko ba àdduna yëpp gis ko te lañ may tuumaal jegewuma ko gisuma ko ñoom liñ ma wax ñu ne dama saaga seen baay te loolu amut ndax man seen baay xaw ma ko mosuma koo gis donc nit mënoo koo saaga tax xamoo ko mosoo ko gis jotewu leen dara c'est impossible loolu mënul nekk wax naa leen ne preuve bi gën a sew ci ojo ci wax ci bind ne ma saaga seen baay buñ ko indee man ma bàyyi coow li talaam bi ma dóoree suma ngaam bi ki jàppoon ci police bi dem ba xaw ma turam ku xees ki moo ma dóor fii ma off xamatuma fu ma nekk ki nekkoon suma ginnaaw weq ma ma daanu ki nekk suma kanam di ma dóor fiil moo dagg suma nopp bi nii noonu la dóori demee ba xamatuma fu ma nekk mais bu ma duggee ci oto bi xam naa ne maa ngi ci oto léegi ñu ngi romb te naan Ahmed Cissé ngi ni ñu ngi dem nangamtaan ndeyam ñoo ñu di leen yëkkati loxo naan leen macha allah ci diggi bayali dina Baay bi la loolu xewee wax jooju waaye bunti kër imaam Cheikh leen ma defee jëf ji bañ ma yóbboo ñu di ma dóor am ku ma weq suma xol bi suma nokk bi bloqué ma ne leen may leen ma ndox ma naan ñu bañ jigéen bi fa nekk moo xelli ndox may ma ci laa mun a ñu di ma forcer jéggalu seen baay te tooñuma ko waxuma ko dara lu ñaaw amut te kenn du ko mës a mun a génnee. seen baay da ngaa mës a xamante ak moom. mosuma ko xam ci àddina man mi dina kudut imaam Cheikh dama koy wax di ko répété awma ci yow soxla ci moom laa am soxla mooy suma sëriñ kudut moom damay maslaa gi yow ngir ñoo bokk di doomi aadama di jullit di ay taalibe kudut moom dinaa jàmmoo ak yow ndax moo ma war waaye sukk sa jox la suma bopp. jël suma xaddee di la ko jox imaam a ko mérito ci man ndax moo ma bëgg man moom laa bëgg kon. politique daf ci rax dañ doon tudd Modou Ndiaye Rahma ak Serigne Mboup. déedéet déedéet déedéet Modou Ndiaye buñ ko ci tudd defut ko gisut ko yëgut ko Serigne Mboup buñ ko ci tudd defut ko gisut ko yëgut ko buñ ci tudd imaam buñ ci tudd xalifa bi man leen agressé salaam moom agressé ak ñeenti ak ñetti mbokkam. ñoom biñ juróom leen ki doon dawal oto bi ñaar ñi ci kanam ñaar ñi ma seq ak salaam. salaam liñ mus a seq mooy dafa ñëwoon bi ànd ak imaam Cheikh. ma gis ko rek muy taxawaalu moog yaayam sedd baa ngi métti ma ne ko yéen yeneen ñan lan la lu xew fu ngeen jógee ñu ne ma Medina Baay imaam leen àndal fu ñu dal ma ne leen tey mu jeex. ma dem ci hôtel bi ne jëlal leen ma ñaari néeg pour meer bi ak doomam waaye maire bi jox leen ko ci suuf ngir tànk yi du mun a yéeg lii de laa seq salaam. Ahmed démb waa Medina def nañu point de presse yi nga xamante ni ay suñu bàyyi ñëpp nañu dañ lay utiliser dem nañ sax ba ne 80 000 francs ñu ngi la koy fay chaque jour wutal nañ la hôtel ngir que Medina sëriñ bu wax rek nga génn contrecarré. wax jooju ñu wax. daf ma naqari ndax bi ngay laajte da nga ne sëtu bàyyi. te se nekk ñu si ëpp ay sëtu bàyyi lañu te boo bëggee ma jox la ay tur. damay tontu ci wax ji dama ne. li tax mu naqari ma. mooy li nga ma ne yenn sëti bàyyi. Mm-hmm. dont ne sa bàyyi jur seen bàyyi. muy Seydi Aliou mu Papa Dame Ahmedou mu Papa Dame ñooñu représenté wuñ sëti Baay yëpp ñenn ci ñoom leen te jikko yu suufe yooyu ñu jikkowoo Baay Ñas waxoon na ko nee na ku am jëf jikko ju bon ci yow sa néeg ndey nga ko jëlee waaye du suma di su man mais nag doomi doomi Baay Ñas xamut lu ñaaw du def lu ñaaw su ko kenn koo xam ne nii askan wa den la caa boole defee dafay métti ci baay njabooti baay donc bala may tontu maa ngi masawu njabooti baay di wax ne moom Seydi Aliou moomu bu dee mat na kilifa te mu am preuve daf ko war a génneel askan bi waaye toog kebatu yomb na nit donc den may fay kan moo ma fay fan la xaalis bi jaar nan la damay attaqué kilifa ban kilifa laa attaqué bi Baba Lamine warloo def naa vidéo ne solal naa ko robb avocat dama ko tagg kan laa saaga benn kilifa Medina Baye bu dee ñi nga xam ne nag jaay neen seen ngor jaay seen judd ndax ñaari liste am list bu yàlla di bind ak liste nit liste mondial rahma bi bu jàllee ak bu jàllul mënoo weesu conseil Kaolack waaye list yàlla bi ñu la bind ngay sëti baay loolu dafa laaj wax ju rafet dafa laaj jàng am xam-xam jëfee ko te mu sell dafa laaj màndu ci alal dafa laaj gore ci jigéen ñi. list boobu la ca yàlla boole na nga jëfee lu uteeg loolu sa affaire la ba waraat làqatu ci ginnaaw politicien di wax lu amul dafa métti si Cissé bi mu taxawee police bi daf ne kii leen war a jàpp saaga. ma jege ko ma ne ko Cissé. li lii laa ko wax. Cissé Serigne Aliou Cissé mu papa daam ma ne ko mag. tey si suba gi woo naa ko téléphone parce que am naa fit duñ ko wax. mais boo jàkkaaroon ni rek xam capabilité information bi ma am mooy man mosuma woon a bugg porte plainte su ma diggante ak yàlla ndax ci guddi gi la xew ci suba gi leen porte plainte waaye nit boo amee ay mbokk da leen di cëral li tax bëgguma porte plaint waxuma juste senegal baaxul sañu ma ko waxuma ñi fa nekk baaxul waaye man maa ko gëmul te li tax gëmuma ko mooy bi ma porté plainte ma ànd ak policiers dem jëli benn booy bi jëli paa bi bi ñoom ñenn ñenn ci ñi dëkk ci Medina ñëwee sii sa bokk ci Ahmedou ak gaa yëpp den ma doon saaga foofu na ma santoo ñas dëkkoo ci dëkk bi amoo fi nijaay bu ñu la rayoon yaay perte ñu ngi nii taxaw duñu fi génn te paa bi génnu te effectivement ñëw ànd ak paa bi dem ci guddi gi ñu bàyyi xale bi mu dem donc li ma doon daw ngir bañ a dem justice preuve baa ngi noonu procureur ubbi na enquête loolu procureur la waaye doomi aadama la gambien la jullit la nit la suma kër sëriñ laay ñëw jotewul dara ak politique soluma tisati sëriñ buub yuuxuwuma sëriñ buub te ñoom neewuñ ma rax ma nga àndal wala àndoog moom den ma ne yaa saaga suñ bàyyi te du dëgg politicien du lum def rek ñu ne politique la jàngalekat yi daara du lum def rek ñu ne jàngalekat daara lii politique ay nit ñu dëkk mi dina Baye la yàq deri pays bi ñaawal image bi ci toroxal doomu yaadama agressé ko kidnappé ko dóor ko vidéo ko ci lan newuñ ma yaa def raxmali wala sëriñ boobu den ne seen baay laa saaga te saagay abul donc porté naa plainte ñoom ñu ne santuma ñas ñu ne dëkkuma ci dëkk bi ñu ne du mujj fen te effectivement paa bi romb na ma julli timis xale bu góor bi dem na yeneen ñetti xale ñu ngi leen nëbbu ci dëkk bi ñu ngi toog bu dee yoon am na bu dee yoon am na te mu ngi def liggéeyam na xool li ma mérito mu jox ma ko comme nag li ma ñàkk a ñàkk a wóolu yoon respecté naa protocole ba dem ci yoon neen def liggéey bu dee man maa tooñ saaga bàyyi jàmbur xas ko neen ma yar bañ xam ne saaga baaxul waaye su fekkee ne nag man leen tooñ agressé ma kidnappé ma yóbbu ma fu ma neexul vidéo ma te amuñ ci droit partagé ko dëgg dëgg war leen maa jox suma ax waaye su fekkee ne ku sant ñes mucc nga jar nañu jaay suñ sant bàyyi sant ñes Moustapha Adiali moom suma xarit la su ma am di jàmbe la dañu taxaw ma nag moom di kaf di ree moom mu ne ma ñi ci biti suñ gisee may masala ak yow sax dinañ ma mere kon moom mu ngi def lu gëmut kuy def lu mu gëmut nag su waxee lu gëmul aw ma ci problème mais orba laa am ci moom teraanga laa am ci moom mbëggeel laa am ci moom na ko respecté ñu bañ koo jàll. xamaluma ko lu bon waxuma ak moom leneen lu ñuy nettali ci média mais lii moo ko wax. loxo bu ñuy fóon du dóore te kilifa gu am cër ci yàlla duñ toroxal doom aadama sa kanam nga nekk complice nan defal li xale wax man franchement gawma loolu. nag yaa ko tuddee kilifa xëy nga lu tax waaye dama ne nit kooku jaam boobu jaami yàlla boobu xaw ma ko jotewuñu dara musuma koo gis. xawma mooy kan naka laa ko mën a tooñee gis naa nag benn vidéo ci internet ku taxaw waat ci yàlla ne su moon jaay raxma ak Pape Demba Biteye gañe woon moom bàyyam juru ko ci internet bi laa ko gis dumaa dem vidéo nit ki dumaa ko partagé moom moo nangu ñu vidéo ko ñu partagé ko ma jot ci comme tout monde ma ne kii nee na jox na Pape Demba Biteye départemental jox na moon jaay raxma mairie waat na ko nag neen xool li ci kanam incha allah le 23 yàggatul lii saaga la ku am cër ci yàlla ba warlu koy ñu publier la ko dangay ngay sant yàlla weesuwuma ko su dee pas bi mooy kooku weesuwuma ko fi may tëjee mooy mhm. toog naa ak imam Cheikh Cissé léegi nii toog naa ak xalifa bi léegi nii seen wax ñoom ñaar yëpp benn la imaam Cheikh daf na ma jéggaleel xalifa bi mu ne ma soo jéggalee mooy li gën waaye dafa am lu am duma ma ne Medina Baye ndax Medina Baye ñaar rekk la kilifa gi sant ñes di xalifa bi ak imam bi sant Cissé di imam bi ñii ñooy kilifa Medina Baye ñu si des yëpp yaa ngi ci roon ñi ak koo mën a doon ak maqaama boo mën a yegg yaa ngi ci roon xalifa bi wala imam bi ñaar ñooñu nag suñ ma duma leen mën a bañ a may ndax su ma deewoon tey ñoom laa bëgguñu tiim ma julleem dafa am xeex boo xam ne xalifa bi mënul koo porter imaam mënul koo porter su fekkoon ne am neen orma ci imaam Cheikh duñ gis kenn ci doom doomi deretam ndax maag imaam suñ maam yee bokk ndey ak baay ma gëm ko lool te àddina xam ko ci man fekk ma bur bunti kër imaam agressé ma ormaloo imaam jël ma ci biir pays yu Baay Ñas bi biir Medina Baay nga agressé ma toroxal ma foofu gëmoo Baay lu mel nii nag dañ ko war a ànd xeex ñaari kilifa nag ñoo am kilifa gi jub xam dëgg moom du nangu ñu jël suma dëgg dafay ànd ak man ci suma dëgg kilifa gi juba di xamul dëgg day làq saay-saay ne baal ko ci tuuri mbokk ak lislaam loolu du dëgg du yoon man Cheikh Ahmed Cissé si suma xel baalewuma jéggalewuma li ma bëgg mooy su dee réew mi am na droit su dee doomi aadama foor na ci lu luwaawu Sénégal su dee étranger am na solo ci réew mi ñu def ko lii ñu ko def na lu luwaawu Sénégal def liggéey su dee nag ku sant ñas sañ ngaa def lu la neex mucc